docteur Alioune Blondin Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay maa ngi lay ngay médecin spécialiste en médecine interne. tey ñuy wax ci euh, coppite courbe bi ñu gis ci wàllum épidémie muy mbas mi euh, am suñu réew ak ci àdduna bi wérngal képp euh, lan moo ko waral docteur lan moo waral changement bi. bon changement bi am actuellement li li li ci ci sama xalaat bu ndaw daal mhm. li li ko indi ñaari kii c'est que na mhm. mu jàngoro virus bi bu corona mhm. boo gis virus boo gis day jékki-jékki wàññeeku après même boo deful dara day jékki-jékki yokkaat moom la ñu tuddee rebond virologique. Mhm. donc loolu moom day am virus. moom ci virus bi nag ci ci ci ci jëmmam daal la am quoi loolu loolu moom mooy première explication. Mhm. ñaareelu explication bi moo di boo xoolee boo xoolee sedd virus boo gis buy ci lay gën a mën a law. te ñun ñu ngi commencé dugg ci sedd bi mhm. loolu mooy ñaareelu explication ñetteel bi mooy maanaam mesure barrière mooy li ñu war a far fagaru pour mooy tukki bi wax dëgg yàlla depuis quelques mois wàññi nañ ko ci africain yëpp ñu wàññi nañ ko loolu lan loolu boo ko wàññi tamit day jox day tax virus bi gën a yokk di law ci population mhm. ñetti explication yooyu daal laa ci la moom ci sama xalaat bu law daal bu gàtt moom la moom laa moom laa gis ne daal sedd bi mhm. euh, sedd bi le fait que ñu wàññi mesure barrières yi maanaam ñu wàññi fagaru bi mhm. ñetteel bi daal mooy virus bi ci boppam am na loo xam ne ci jëmmam la nekk boo xam ne da jikki-jikki rek amaat day day kii bi day day si virus boo gën noonu lay noonu lay évoluer. kon daal changement climatique bi benn facteur la ci facteur yi nga wax ni waaw kay mhm. mhm. ndax benn virus bi la euh, wala dafa soppeeku. voilà alors man ci sama xalaat bu gàtt daal. Mhm. virus bi ñu amoon moo nekk ba léegi.

virus bi xawoon na wàññeeku mais lii ci ni ci sama xalaat mooy même virus bi moo amaat actuellement. d'accord ndax tey mën nañoo am tiitange ci euh, seconde vague bi nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee tey suñu. waaw alors ci bi am na solo wax bi mën nañ ko am mais euh, ci ci bu fekkee ne ci af euh, bu fekkee ne virus bi dellu si na ak doole comme Europe. Mhm. ah. Mhm. ci mën na mën nañ ci ci mais li mais li ma yaakaar mooy comme léegi tàmm nañu virus bi ba pare li ñu li ñu ak li ñu war a xeex virus bi. Mhm. maanaam ministère de la santé hôpitaux yi. Mhm. kon même population bi sax même nit ñi sax léegi xam nañu virus bi nga xam ne fagaru bi. ci teel yi gën a yomb dama damay seet par exemple semaine dernière rek la ñu wax ne virus bi dellu si na mm-hmm. mais dama génn fekk ñëpp sol masque te amul communication ñëpp commencé sol masque gel yi commencé génn nga xam ne lii population bi dafa mel ni daal dafa mën a gën dafa gën a tàmm fagaru contre feebar bi. di tax mhm. ma ba nga xam ne xalaat naa daal wala yaakaar naa ne daal fekk ne dellu si na bi yoon. Mhm. dootul amati ci du du indi daal maanaam du indi daal euh, euh, du doon benn mbas boo xam ne garaawoon na comme bu njëkk bi daal. comme ndax xamuñu ko woon mais am na benn aspect boo xam ne muy wàllum koppar mënul ñàkk ci xeex mbas mi ndax hmm. tey jii euh, ba muy door comme ni nga ko waxee nit ñi dugaloon nañ seen loxo ci wàllum koom-koom su ko defee ñu xeex. xeexandoo mais tey gis nañ ne ci Covid bi euh, am na njeexital ci lii di koom-koom gi ba tax na xaalis ga ñu génne woon premièrement duñ ko génnee boo mayul pour la plupart ndax ñu bëri dañ naan seen économie seen liggéey lu ci bëri yàqu na ci mbas mi. dëgg la moom. Ah. waaw léegi léegi moo ko dëgg moom loolu moom problème la c'est-à-dire fi mu ne moom xaalis boo xam ne am nañ ko pour encore nit ñi toog seen kër ñu am confinement. Mm. seen seen muy Sénégal ci yeneen dëkk yi sax man dina ma jaaxal ndax am nañu amaat nañu xaalis boobu mille milliards yu génne at ko bu fekkee ne dañu war a confiner waat ja xaw xaw xaw ma fu ñu koy mhm. mais mais daal euh, fi mu ne moom bu amaatoon daal xanaa ñu dem ci organismes internationaux yi wala ñu dem ci ay Nations Unies fonds mondial et des choses comme ça. te ngi ci jafe-jafe. ñoom tamit ñu ngi ci jafe-jafe seen bopp. ba nga xam ne daal fi mu ne daal fi mu ne daal li li li ñu dese daal mooy li ma ci li ma li ma la doon wax sànq rek mhm. moom yaakaar naa ne deuxième vague bi daal. comme tal nañu fagaru bi daal bu fekkee ne même même mesure barrière yi observé nañ observé nañ ko bu baax. Mhm. incha allah du ñu dem du ci beneen confinement quoi. te mhm. comme léegi réaction population bi baax na. Mhm. ñëpp a ngi sol masque man du ma jaaxale sax ñëpp a sol masque te amul sax communication bu bëree ci loolu. ñoo ngi nit ñaa ngi solaat bu amee daal mais bu ñu demoon ci benn confinement moom. xaw fu ñuy jëlee xaalis boo xam ne mën nañu dimbali entreprise yi dimbali borom néew doole yi et cetera fu ñu koy jëlee moom. ñoo ngi wax euh, waxi vaccin anti Covid euh, jamono ji euh, fu ne nga mm. dégg ko ay mm. professeur mu mel ni tey ji njëkkante bi dafa gën a taax ndax li ni mel dina am njeexital ci fiabilité boobu les vaccins. waaw kay loolu am na solo bon léegi vaccin boobu da vaccin boo xam ne. Euh, bi bi ñu ko commencé di ci xalaat. Mhm. boobu boobu coronavirus ba boobu mbas bi ñëwagul. dañ ko xalaatoon pour yeneen feebar yoo xam ne dañu bëggoon par exemple euh, ay ay feebar yu mel ni jabet dañ ne bu fekkee ne mun nañ jël euh, ARN maanaam nooy xam xam virus boo gis daal. day am loo xam ne presque mooy mooy maanaam mooy xol bi moom la ñuy tuddee noyau. Mhm. léegi boobu ARN la ARN boobu nag moom la ñu jël ba pare di ko di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba nga xam ne boo ko injecté nit yaramu nit kooku day génne a yeneen défense yoo xam ne mën la aar ci yeneen feebar. Mm-hmm. voilà loolu mooy principe vaccin bi. Mm-hmm. vaccin bi ñu ko doon étudier bi ñu koy étudier boobu dañu ko doon fee étudier pour faj yenn feebar yu mel ni diabète wala yenn feebaru cancer et mm-hmm. yàlla def kii bi euh, mbas bi génn bi ñu bi mbas bi bi ñu xool corona bi ñu ne mi corona ARN la. Mhm. kon vaccin yi ñu doon vaccin préparer pour yeneen feebar. Mhm. mun nañ ko utiliser loolu moo gën a tax nag o bout de six mois ñu am benn vaccin parce que normalement vaccin boo gis. pour ñu pare il faut que mu am juróom ba ñaar wala ñett même mën na dem ba juróomi at. Mhm. pour nga gis ñu mën a fabriquer vaccin mi ñoom six mois rek ñu pare benn vaccin. bon du càggan ne vaccin bi amul doole parce que ñoom bi ñu koy commencé di ci saytu ak boobu ay 2015 la woon am na juróomi at déjà. d'accord mais xam ne bi ñuy xoolee virus bi rek ñu ne ñun am nañu loo xam ne fi ak 6 mois mun nañ la ko proposer. d'accord léegi nag vaccin bi nag man li ma ci xam mooy efficacité bi maanaam ko xam ne am nga vaccin. te maanaam ñàkku nga ak vaccin bi. Mm-hmm. Ah, te amaguloo feebar bi. Mm-hmm. moom am. waaye nag vaccin bi lan mooy problème bi mooy kenn xamul ne bu fekkee ne am nga ko bu fekkee ne am nga ko. am mm-hmm. ah, vacciné nañ la. kenn mënul wax ne que mënoo wàll keneen. d'accord loolu mooy problème bi. Mhm. comprendre nga yow sa bopp doo doo am feebar. parce que virus bi même bu développé wu sa yaram en fait anticorps yi ci nekk maanaam xeex défense yi nekk ci organisme daf koy neutraliser. Mhm. mais du càggan ne bu fekkee ne da nga sëqat wala fli wala nga kii kenn ko xam ne euh, amul vaccin bi. Mhm. du càggan ne moom doo ko mën a wàll loolu amaguñu réponse. d'accord li ma comprendre nga li ma la wax. Uh-huh, comprendre naa li ma ci docteur mooy euh, Afrique gis nañu ni mu résister euh, mbas mi contrairement aux pays occidentaux te gis nañu virus bi tamit fi koy vaccin bi fu koy defaree est-ce que mm-hmm. tey jii euh, dina am même effet Afrique. waa loolu moom question bu am solo la wax dëgg man daal li ma xalaat ci sama xalaat bu gàtt mu gis naa ne africains yi ñun ñi nekk Afrique centrale ak Afrique ñu ngi tuddee intertropicale parce que waaye Maroc Algérie Tunisie. Mm-hmm. feebar bi gaaw graaw na ci ñoom. Mm-hmm. Afrique du Sud boo xam ne ci tat ci catu Afrique la nekk moom tamit feebar bi gaaw na ci ñoom. ba nga xam ne li ñuy tuddee intertropical maanaam ñu nekk ci diggante Afrique du Nord maanaam Maghreb ak nekk Afrique du Sud. Mm-hmm. ñun feebar bi presque taxu ko taxu ko garaaw foofu noonu. waaw ñetti applique explication moo ci am. Mm-hmm. première explication bi mooy daal yàlla mën na yàlla def na daal suñu yaram loo xam ne comme ñun tàmm nañu am ay jaare maanaam biir bu daw. Mhm. ay yenn feebar yoo xusaj yeneen feebaru grippe nga xam ne dañuy togg ba am paludisme. Mhm. ba pare bu ci nekk feebar boobu bu ci nekk day indi ay défense yaram maanaam ay ja ay ay ay ay gendarme yoo xam ne. mu amat yeneen virus. Mhm. day day am loo xam ne dañ ko mën a xeex moom la ñuy tuddee immunité de prémunition. ci sa li ma xalaat mais li ma lay wax nii. il faut mhm. ñu def ay études ci africains yi. Mhm. pour ñu seet ndax am nañu défense yooyu. d'accord bu ñu ko defee ci par exemple ñu jël par exemple Afrique de l'Ouest ñu def dix mille wala vingt mille personnes ñu étudier seen koom ñu dem ay Afrique centrale ñu jël vingt vingt mille wala trente mille personnes ñu étudier seen ñu def benn essai maanaam benn benn espèce su expérience boo xam ne ñu xool ku ci nekk yan défense maanaam yan aar nga am si yaram après feebar bi bu mu jàllee mhm. bu fekkee ne ne gis nañu ak ñun africains yi am yenn aar yi am nañ ko te yàlla moo ko def ci ñun parce que dañu tàmm yenn infection yi et cetera dañ xam ne actuellement am nañu yenn défense yi mhm. du ñu soxla du ñu soxla vaccin mais li lii sama xalaat mooy vaccin daal comme addina bi yëpp lañ ko defal mhm. bu dëkk bu nekk même bu dee ay Macky Sall ay ñoom Ouattara et cetera dañ ko war indi sa dëkk su ko defee sénégalais bu wala ivoirien wala malien bu bëgg ñu euh, ñàkku ci ak vaccin bi. Mhm. nga mën a am vaccin bi te doo fay lu bëri wala doo fay daal. d'accord ñi ci des ñoo xam ne bëgguñu ko bu fekkee ne bëgguñu def seen vaccin bi. Mhm. ñu xool seen yaram ndax am nañu ay défense de waaw mu am beneen communication bi bi ci jëm ci boobule vaccin dégg nañ ci ay nit di ci wax ku ci mel ni di Raoult euh, thèse bi mu euh, bi mu bi mu annoncé wala thèse bi mu développé ci vaccin boobule bay sax mën nañu ne day découragé loo nit ñi fii ci Sénégal. am na tamit benn communication bi ni ay lobby américain ñoom ñooy defar vaccin bi euh, mu am communication bi nga xam ne ànd na ci yow spécialiste noo ko jàngatee. voilà man wax dëgg yàlla nag gis nga euh, lii wax ci affaire vaccin ak xaalis bu mu lay bu muy indi ak course ci laboratoire yi moom loolu am na mais vaccin bii ñuy wax vaccin ARN bi bu ma koy commencé di suivre boobu deux mille quinze la woon mhm. te gis naa ne parce que ñun ñun ñun médecine interne immunologie lu maanaam affaire u défense yoo xam ne sa yaram daf ko war a am boo amee yenn jàngoro yi ñun dañ koy topp mooy dafa bokk ci suñu spécialité. vaccin mhm. boobu ñu génne ñun am nañu ci yaakaar beaucoup lu bëri lu bëri ba nga xam ne bi ñu ne ci vaccin boobu la ñu la ñu sukk sukkeeku su la ñu su maanaam euh, taxaw pour ne dañuy génne benn vaccin contre corona. Mhm. xam xalaat gis naa ne que maanaam surtout ak études yi yàgg na biñ koy commencé. Mhm. su mën na am. mais bii vaccin ñaari vaccin yi génn maanaam Moderna bi ak beneen bu tudd Pfizer mm. ñaari vaccin yooyu bi ñu ko commencé di saytu ba pare ci jàng boobu yàggal ba xam ne man en tout cas daal li di rawul di wax man du ma ci sukkandiku ci loolu pour nekk vaccin bi baaxul. d'accord man noonu nag ñun vaccin bi mën na yàlla mën na nga xam ne ñun africains yi dañ ko soxla. loolu nag suñu état ministère de la santé ak centre de recherche et cetera bu ñoo war a booloo. Mhm. ba pare génn ci suñu xalaat bi nga xam ne dañuy am nañu ne moom ñun africain fii lañu ñu ci ci ci ci mbas bi fii la ñu positionné wu. vaccin mën na am njëriñ ci tel personne maanaam mag mag maanaam mag koo xam ne dooleem dafa wàññeeku. Mhm. te amagul mbas bi. wala koo xam ne dafa am diabète wala koo xam ne dafa am yaram wala koo xam ne dafa am hypertension ñun ñoo war a déterminer vaccin yi ci ñenn xamal la baax. yeneen yi dañu ne xale par exemple am na immunité. Hmm. c'est pas la peine ñu koy vacciner. d'accord waaw ñun daal ci loolu la maintenant nag affaire du complot affaire du mbas bi dafay wàññi doole góor affaire du vaccin bi dafay tax ba nga xam ne doo am doo a jur affaire yooyu man vraiment wax dëgg yàlla loolu pour man mu ma ko. d'accord parce que man scientifique la loolu bëgguma ko loolu affaire du fake news la. d'accord docteur Alioune Blondin Diop merci beaucoup. Y a pas de problème merci beaucoup. May Fateline médecin spécialiste la en médecine